suite ak euh, li nga xamee ni moo jëm euh, ci pàcc bi leen di jagleel àjjuma bu jot euh, jëm ci secret yi dugg ci ruq ak du xuruxaatu Sénégal xool démb xool itam yenn ci suñu ay secret d'histoire c'est parti. Bessel euh, lañ ci àndal comme euh, vendredi bu jot euh, tey foo ñu yóbbu. dama leen di yóbbu Kédougou waaye nag Kédougou ci benn village boo xam ne mu ngi tudd Iwol. Iwol ñan ñoo fa dëkk mooy Basseur yi. Mhm. kon nag Pape li ñuy def rek mooy ñu dem seetaan li nga xamante ne jëlanoon nañ leen ko fi nga xamante ne rek moom mooy village yu Iwol. ça va bien. ça va ton ko oɗo guer oɗo guer oɗo samori mhm. woni koɓe haɓuno mhm. haɓuno mhm. après minen ko iwni men to mi ari ɗo e nder sénégal ɗo gis ngeen chef de moo leen fa dàq lu tax ñu dàq leen fa dañ leen a bëggoon dañ leen a bëggoon convertir en l'islam ñoom nag bëgguñu ci woon a dugg ñu daal di daw Alpha Alpha Yaya Alpha Yaya Alpha Yaya nag ñëw dem fekk leen fa jàpp seen jigéen yi gën a rafet daal tamit jël xale yu góor yi nga xamante dañu gën gën a am kattan eh, ne dañ leen di yóbbu waaye jël mag yi yëpp rey leen léegi am ci ñoo xam ne nag dañuy rëccoon daal di dugg nag ci ay kër eh, ñu nëbb leen fa bi ñu leen fa nëbbee nag ñu daal di daw si fii mais bi ñu daw see dañu jël 17 eh, personnes yoo xam ne dañ ko dem joxe ji benn jalan ñu may ko jalan bi ñu ne ko dañu bëgg vraiment ñu am suñu indépendance bopp moom suñu bopp jalan yooyu jël 17 personnes boobu 17 personnes boobu nag mooy li nga xamante ne rek moom mooy moo am jàmb voilà olof di ko wax yamb euh, jalan bi daal di soppaleku ay yamb yu bari yamb yu bari yi nag matt militaires yi militaires yëpp de euh, ci la ñu daw si nag fii daal di ñëw nag ci montagne bi bababaamo babaamo ko waɗi découvrir ɗon mm. ko neɗɗo yiyete camara e mm. euh, dewo maayi ko ɗon kanko ɓe surrimo mm. nden sa woni noon duuɓi joyi Euh, baobab bi nag la ñuy ñëw dem découvrir mais balaa ñëw dem découvrir baobab bi dafa am historique bu garaaw ba nga xamante ne moom moo nekk ci baobab nee na ki nga xamante ne moom moo sancoon euh, dëkk bi moom moo génn àdduna bi mu génnee àdduna nag fiñ ko denc bàmmeel bi moom moo sax baobab bi mooy baobab bi nga xamante ne moom la ñuy dem seeti euh, baobab on est ce que onon ɗo de saare woodi ko waɗoto nge baobab he eyyi ɗon meɗen waɗa ɗo sadakaji nga de waɗa sadaka yi mm, ok eh, nee na nag dañuy faral di def fii ay eh, sarax eh, ci baobab bi ñu amee soxla bu ñu soxla ndox wala ñu soxla tamit pour seen dëkk dara dañuy ñëw ci baobab bi def seeni ñaan baobab bi ñiy lekk buy bi mooy ñi nga xamante ne dañu sant kamara parce que ki sant kamara moom lañ fi denc ñoom rek ñooy lekk buy bi ci dëkk bi à part santul kamara munoo lekk buy bi am na 800 ans dëkk bi jigéen ñi yëpp koo gis nga def ko ñàkk ko def des fois dañ koy dindi mais ñoom ñëpp dañu bënn seen bakkan mais létt bi ñu létt nag euh, ñi am jëkkër ñoom ñoo koy euh, léttu ñoom ñooy def genre létt yi ñoom ñooy bënnoo nii mais ki nga xamante ne nag amul jëkkër tamit jànk yi ñoom ñooy euh, létt létt yi façon létt yi ñoom ñoo koy def ci la ñuy xàmmee jigéen bu am jëkkër ak ki nga xamante ne amul jëkkër dëkk bi nag ñi sant Camara seen doom yi bu ñu juddoo nii lañ leen di watee wat bii lañ leen di defaral gis nga ko mooy ñi sant Kamara ñoom la ñuy defaral wat bii mais Bessel fii des fois da nga da nga sañse comme ñoom ah, en plus. <laughs> waaw Pape Cheikh euh, yaa ngi may laaj kii bii mu ngi may laaj ndax xam dama feebaroon nee leen d' abord yéeg montagne nekk na loo xam ne lu jafe la. parce que ay montagne ay montagne ñoo nekk foofu quoi. non benn montagne boo xam ne ni presque ëpp na sax immeuble Kébé. nga nar ko ñoom foofu la ñu dëkk. ci kaw montagne bi ci kaw montagne bi. boo boo taxawee sax ci suuf da nga naan amul benn doomu aadama. bu dëkk foofu. mais da ngay yéeg a yéeg yéeg bi doon na loo xam ne lu metti la. Mhm. mais Pape Cheikh imaginel ñoom dañuy jóge ci kaw. Mhm. di wàcc ci suuf. Mhm. root ndox yéegal ko. chaque jour chaque jour. et bi ñu gisee image yi nii baal ma euh, dafa mel ni euh, des fois dañuy dañuy wax ñun Sénégal euh, il faut ñu won ñu ko pour ñuy doog a xam ni am na bërëb yu mel nii quoi. Pape Cheikh li ci gën a waaw li juré que lii du Sénégal en fait parce que doo xalaat ne am na Sénégal. que bétiki tamit ñoom Guinée euh, Guinée Conakry la ñu jógee. xeet la bu tudd ah, bétiki bétik donc waaw ah, ay bétik lañu. ñoom dañu jógee Guinée Conakry. Euh, Guinée Conakry mais balaa ñuy sanc foofu. bi ñu ah. ñëwee ba foofu nag dafa am benn maanaam jinne bu leen feeñu. mu ne ko ñun dañu bëgg a maanaam euh, nekk fi parce que dañ leen a bëggoon a convertir en l'islam pour ñu tuub nekk ay jullit. ñu daal di ñu ne ñoom li ñu li ñu nekk duñ fa jógee. léegi bi ñu ñëwee ba foofu nag jinne bi ne leen il faut que ngeen def 15 17 sacrifice góor mhm. ngeen jox ma leen ba pare mhm. ma soog leen a installé ngeen dëkk fii mhm. euh, ñoom tamit nag am na ci ñoo xam ne góor ñu bari pour sauver seen famille ñu daal di nag euh, nekk ay sacrifice jinne bi ñu daal di nag léegi jinné bi ku ay yamb ah jinne bi nekk ay yamb ay yamb ah, <laughs> ci biir dëkk bi bi mu nekkee nag ay yamb mu ne leen léegi bërëb bi mun ngeen ko sanc waaye kenn du leen rax donc à partir de 17 heures mhm. euh, ko koo xam ne nekkoo fa judduwoo fa doo fanaan ci dëkk bi ah, hmm. bu tàkkusaan jotee ku fa bokkul da ngay génn waaw dañu ñibbisi doo fa fanaan ah. 17 ah. heures fu mu jotee da ngay génn ci dëkk bi fu mu nekk encore. dëkk bi mu ngi Kédougou. da ngay dem ba Kédougou garas euh, Kédougou. déedéet da ngay dem ba Kédougou daal di mhm. dem ba booy mel ni booy dem ci. chute euh, d'eau yi. ñagara yi euh, ah. non ñagara. chute ñagara Canada la nekk. <laughs> iwol iwol daal iwol la. boo demee ba foofu koo laaj ci village yu iwol. mu yóbbu la fa oto fay dem wala sareet a fay dem. déedéet oto oto bariwul mu fay dem waaye sareet mhm. da ngay ñëw ba foofu yéeg mais balaa ngay dem tamit ci dëkk bi. faaw nga avertir leen ba pare. Mhm. noo leen di avertir am nañu téléphone wala parce que am na koo xam ne tout le temps mu ngi ci suuf. parce que léegi fi mu nekk nii tubaab yi dañuy bëgg di dem di visiter foofu. mais am na ko toog ci suuf boo ñëwee kooku mooy yéeg wax boroom dëkk bi ah diw sàngam nangam bëgg na fi ñëw. est ce que mën na ñëw sax dañuy ñëw ba dëkk boobu. dégg naa di ko photo di ko documentaire di ko yóbbu ci ñoom te ñun duñu exploiter dëkk bi nga xamante ni Sénégal la mais nag balaa nga yéeg bu dul loolu doo mën a yéeg hmm. amaana boo yéeg mën nga glisser ci montagne bi daal di daanu mais tamit am na benn benn maire bu màgget a màgget boo xam ne am na 199 ans ah mi ngi ci dëkk ba mi ngi ci dëkk bi presque 200 voilà mu mu bëggul ñu filmer ko Pape Cheikh parce que kooku d'abord sax boo demee ci moom euh, melokaanam bi nga xamante ne mel na ko doon na loo xam ne lu doy waar la ah moom moo nekk di sàmm li nga xamante ne moom mooy dëkk bi boo tamee danaan la bi Ndiaye ana sa yaay diw ana nangam nangam da lay tuddal ay tur da lay tuddal ba wax la fi nga jaar yépp li nga def li nga def mais boo xoolee tamit si wàllum mbéy. Mhm. macha allah ñoom li ñuy béy ak ñun li ñuy béy benn la mais mun nañu wax ne ñoom seen mbéy moom moo gën a barke. Ah. seen gerte nuróowul ak suñu gerte. dugub bi nuroowul parce que ñoom boo xoolee seen dugub sax danga naan est-ce que lii Sénégal lañ ko béy. kon tey ñoom nit ñu jaaxalee xam ngeen ñoom dañ ñu jaaxal. Ah. mais ñun boo demee nii la ñuy def. ñun tam dañ leen jaaxal quoi waaw dañ leen da leen di jaaxal ñu lay làmb nii di xool di ñaan solo solo yow ban genre nit nga ñu fonk nit ñu fonk li nga xamante ne moom mooy ay per aada dañu fonk ay cakk parce que bi ma demee sax dañu ne naa simmi cakk yi ma sol may leen ko guy bi ngeen gis nag moom moo gën a mag ci Sénégal ci guy yëpp parce que ki sant kamara moom moo nekkoon euh, chef de village bi mhm. ñu suul ko biñ ko suulee nag mu ne euh, euh, sama bàmmeel guy dina fa sax mais guy bi ku santul kamara doo ko lekk. ah d'accord ah. d'accord soo ci lekk ko ah, ay ay mu ngi mu mu ngi jur buy ba léegi. mu ngi jur ba léegi xanaa ko sant Camara dindi dem aji may la. ok mu jox la. bu la mayee nga mën koo def xutur. xam nga xutur. waaw mooy que doo kii bi doo ko toj. ok ci biir ngay defaree ngay defaree kii ñambaanu. ñambaan bi xutur la xam nga euh, buy dafa ànd ak kiiwam. waaw dafa ànd ak euh, am na nu ñu ko tuddee dafa ànd ak yëfam. nga xam ne voilà boo bëggee génne buy bi da nga koy toj xam nga yéen da ngeen koy toj def ko ci kaas mm-hmm. euh, def ko njambaan mm-hmm. waaye bu la neexee nga dagg ci kaw rek ah. bàyyi buy beeg ñax yeeg yëpp ci biir def ci sa tuuti ndox ak sa suukar ak suy baax euh, paraît-il euh, xutuur la tudd xutuur parce que li ci gën a garaaw tamit mooy que bitik yi uh-huh. ñoom jigéen balaa ngay sëy il faut que nga am cinq cinq doom balaa ngay tey mu neex waaw. aada jàmbur la kenn du ko rey. mais mais quand ma leen reetaan cinq doom ba pare. juróomi doom ngay am doog a sëy. ba pare nga soog a sëy. luy loolu mais fooy jëlee doom bi ki lay waaj a ki lay bëgg a takk moo lay jox. parce que tamit gis nga il faut que nga dem fa que dafa am yenn secret yoo xam ne sax ñemewuñ ko wax ci télé am na loo xam ne nit buñ la ko waxee sax danga naan est-ce que kii li muy wax. que duñu sëy seen biir sax. noonu la parce que ñoom seen biir la ñuy sëy kenn du leen leen du ñu seet ni kii pap ah, frère la wala du ñu seet yaay la ñoom daal dara. foofu daal inceste amu fa. maanaam mois d' avril dañuy lël góor ñi bu ñu lëlee góor ñi dañuy jël jigéen yëpp dugal leen ci néeg. mais néeg bi day lëndëm. tey mu neex tànn sa bu la neex la. def su bu ne weer. waaw desel foofu foofu dëkk boobu fu mu ne. noo bëri doo dem. <laughs> jege faa fanaan. ah dëggoo fa mënoo fa fanaan dem rek. yëgali. loo loo loolu moom moo fa. lëndëm dañ koy créé lañ koy la ñuy def fête bu mag boobu. Mhm. képp ko xam ne bétik ah. nga waa. Mm. donc avril bu ngeen ma gisulee yeewu leen rek. <laughs> maa nga gëdu ko. ci biti léegi Pape Cheikh na fa la nattee góor ñi. Ah. bu ñu jógee lël dañuy ubbi néeg bi ñu dugal leen fa après koo jot rek amul. <laughs> desel fii gi toj. je ferai pas de commentaire. waaw mais Bessel parce que à part seen dëkk bi yére yi rafet na tout mais est-ce que yaa ngi doon wax ay affaire dugub ak ñoom lan la ñuy dundee exactement. li dundee moom mooy euh, foño euh, foño la ñuy dundee ak li nga xamante ne moom mooy euh, jeexte. Uh-huh. ak tamit li ci mel ni tamit mango mango bari na fa torop. Ah, ok d'accord d'accord ñoom lu ñuy dundee lan mooy seen plat principal. léegi parce que tey cuisine amul mais bon tu nous expliques un peu ñoom lu ñuy togg ñoom d'habitude sii am na sax yow tamit xam nga ne faaw ma daw yëngu ci togg ok kon kon kon togg bi lan la tey togg bi tey euh, Pape Cheikh foñño la parce que ah. bu ñu nee Kédougou ñëpp xam nañ ne fa la ñuy béyee foñño bi te dañ ko bëgg lool kon nag dañ leen di woon li nga xamante ne moom mooy foñño te ñu bari nag xamuñu luy foñño yow foñño foñño xamuñu luy foñño ba pare xool ma mosoo ko lekk mosuma ko lekk mais biisu bu ko miimal dara yow sànq danga ma ne sama tekk bi eh. waaye moom it sewaayam bi eh. <laughs> lu nekk lay ràng mus nga lekk foño <laughs> mus nga lekk foño ah, mus nga lekk foño non non mosuma ko lekk quand même mais xool bi ma xool moom it kon nag ñu dem seeti ji rek euh, waa Kédougou plat traditionel mi nga xamante ne moom la ñu rek muy foño cuisine ne donc yaa ñuy wax ne foño nga ñuy toggal mun nga ñu wax rek lan moo tax ngeen taamu foño aussi waaw foño lu tax ñu tàmm ko nag mm. day xam ne lekk bu baax la te lekk bu oyof la mm. mag ñi foño lañu gën a bëgg mm-hmm. ndax foño moom dafa sell suñu mag yi njëkk foño la xam mm. foño amul dara baax na ci ñi xam nga am xamante ne mm-hmm. amee nañu sax jabet mm-hmm. souvent dañuy laajte foño bu buñ lekkee foño loolu moo leen di dimbale ci seen yaram bi moom la ñuy béy bu ci yokk mooy mboq mboq foño gerte loolu ñu am loolu lañu am lu ñuy béy fi kon léegi yéen foño bi boo leen ko béyee waaw moom ngeen di toggaat ci biir kër yi di ko lekk di ko lekk loolu la ñuy togg di ko lekk fi mu ne mm. nii tey sax moom laa def añ mm, <laughs> ah nii leen nii léegi waaw bii moom pare na ñu ko tayee ok waaw lay ah, nii lay tàng na de tàng yaa bi li ñuy wax fi mu ne nii dañ koo dëbb ba mu set mm. bees ko in ma tëj la bi boo ko mm-hmm. yaa pour xeer yi deñ pour xeer lii moom lii ngay def rek lekk di def nii rek bu setee rek gis nga boo yàkkamtee wala nga am mu nga ko def sotti ci morso mm. nga takk ko ci kaw mm. boo yàkkamtiwul nii mën nga koo dugal léegi ci inde bi mm. nii ngay def rek ku nekk ak li nga xam waaw boo defee nii mm-hmm. ndox mi day deñ ba mu set bu setee mm-hmm. da ngay jël rek sotti ci inde bi sotti ko ci inde set sotti ci indi bi. Mhm. ban soos nga koy booleel. lii da nga koy booleel ñun fii suñu togg ñun maafe rek la ñuy def. Mhm. maafe bi moom. Mhm. ngay dañoo da ngay jël boo jëndee sa yàpp rek. nga bi rek kese. raxas ko ba mu set. dagg ko taal ko ci cin bi. bu demee ba ndox mi di waaj a ŋàcc. nga jàmb sa bi maanaam bu ma xoolee. Euh, doo leen doo leen doo leen ko rosi duñu rosi diw de duñu rosi dara. Hmm, yéen xamoo leen maafe bu ñu rosi. daal def ndox def yàpp bi bu baax waaw baax bu ñoree léegi maafe bi day dem ba génn diw. diw ni ni ñoragul bu ñoree day dem hmm. ba génn diw nga dëbb sa soble. Hmm. jël sa ki dëbb tuuti ne tuuti ak kaani nga def ci. jeex e adde hordene en faway ɗo on to fayde maafe won ɗo e eh, jone ma haadi nana eɗo ñama besel a ñamani ñama kay cheikh diallo a ñamani ban pala nga ñamani innumi mi ñaami ha mi ari ɓayde no weeli noon ɗum ah, waɗi noon ma emma min ñaami est eh, ce que ɓewa ko ñaami neehna noon no weeli neex na trop. lii la lii dafa niroog maafe wala. xaw na laaxe nag tuuti. <laughs> waaw maafe bu ndox. <laughs> sama gis-gis la rek. maafe ndox maafe ndox <laughs> doo ci teg yàpp doo ci teg yàpp de. yéen xanaa doo leen lekk baasi. waxuma baasi eh, sax mais nuru na sax couscous marocain. mais moom la foo ñëw genre couscous la kañ léegi ñu togg soosu baasi. Hmm. xam ngeen baasi mooy. baasi salte soosu déedéet baasi salte mooy soosu tomate. voilà xam nga du dang wute naag maafe bi ne kàdd nii rek mënte lu ñu. mayel mayel besel. dinaa ko may may ma ma daaneel doom. waaw ayca demal waaw ma waate <laughs> baa ma delloo la ko. vas <laughs> xam nga maafe ku nekk ak ni ngay toggee sa maafe. Eh. mais Kédougou ñoom bu ñu togg maafe maafe bi day oyof trop trop trop. waa ah, day ndoxe waaw dafay du dang <laughs> parce que dañ ciy def tamit tuuti sungufu kànje. Mhm. Euh, sungufu kànje lañ koy laaxee pour mu xaw a di tax tuuti. après ñu togg foño bi mais foño bi soo koy togg boo ko tayee ba pare liggéeyu foño nag dafa metti mhm. parce que ci xeer lañ koy béy. Ah. dafa bari xeer bari suuf faaw nga yaax ko ba dindi xeer yëpp. yaax ko faaw nga yaax ko. <laughs> yaax waa fan nga yaax wala yar de yaax laa la wax. ah yaax da nga koy yaax waaw. Ah, luy ngay prononcé ba léegi rek. tax nga yàq. luy yàq dama dem bay wax ma ne nii. luy yàq. ma papa day dóore luy déglu rek. ah damay dóore de dëgg la de eh. kii mooy wax. un peu de silence waaw. da da ngay jël ñaari leket wala boo amee paan. maire yi wala ñi nekk ci kër ga xam nañu lan mooy yàq parce que dugub sax dañ koy yàq. Mhm. pour nga dindi xeer yi. Mhm. day tax boo koy lekk du xajam mbaa mu am ay xeer buñ ko yaaxul nag du am loolu yëpp. Mhm. parce que il faut que nga dindi xeer yëpp ah. mais foño dafa naqaree togg. naqaree defal. du ku ne moo ko a defal mais boo ko tayee ba pare da ngay dagg lu ci mel ni kànje ñoom mm-hmm. kànje bi nga dagg ko pour mu neex a lekk parce que dafa ye wow ah, waaw dafa dafa kànja bi il faut nga def ko ci mm-hmm. pour mu neex a lekk bu du lool du neex a lekk mm-hmm. ñu jël nag seen soos bi rek daal di koy sotti ci digg bool bi mu neex lool nag Pape Cheikh jël sa loxo bi ne <laughs> kon xaaral ma yaax la rek ay ca ma yaax la rek ah jëm laa yaax rek eh, dugal suñu invité tey ah.